lépp suufe suufelu na sukkuraam na ngir rëyam gi ci turi borom bi nga xam ne lépp ommatu ngir ragal ko borom bi nga xam ne ci ndigalam la taxawee waaye suuf si ci dooleem la dale bismillaahi rahmaani rahim yow borom bi subhaanahu wa taala yow yàlla mi nga xam kenn du yàlla ku yow yow mi njël benn bi nga xam ne amoo ci ca cay tey des ba faw amo jextal be dapet yow mi kanam di ginnaaw di kaw di suuf di borom ciobere di borom nomel yow ki sotandiku te yow dong ya mun yaay ki yek do wacc yaay ki raw ken dula dab loo yembal mu yemb loo yembalil du yemb muk koo jiital ñu topp koo nërmal mu daanu koo bitti loxo dootul tekkeeti koo jiital ñépp nangu sukk jébbal yow rek yaay yàlla képp ku dul yow du yàlla yaay ku sàppi yaay ki dul soppeeku yaay ki dul folleeku képp ku dul yow dana soppi dana sàlli dana soppeeku dana wàcc dana daanu dana jeexal ko fal rawna na wacce wàcce ñu ngi beesalaat suñu mbuumi njaam di wéralaat suñu pas pass yo yalla di sukk di ram sa kanamu rëy gi ni yo rek ya yalla ku la topp du xewi ngir do xewi waye ku la ku du yo yalla dana xewi te ay mbiram du soti yo yalla ñu ngi lay ñaan say géeju teraanga say walangaanu xiiwal yàlla bu mu deñ mukk di walangaan ci kaw xayru xalqillahi te mooy seydina muhammad jëmm joo xam ne jigéen musta jur lu mel ni moom daa iman abadan jigéen dootul jur lu mel ni moom kenn la woon ci mbi ndab yàlla dootul tollanti ko ti mukk ku jokk ci moom yegg ci yàlla képp ku jokkul ci moom doo yegg ci yàlla sallallahu alayhi wa di ñaan teraangaam yooyu yàlla bu mu dakk mu ci sahaaba yi képp kuy xeeñ ci yoonu seydina muhammad daa iman abadan yàlla na sa cër doon mucc ak mucc la ya rabbi nuyoo yoo xam ne lépp lu ñu téye ne lii lu war a gën a neex la nuyoo yu ko gën a fës tànn nañ ko jubal ko ci mbooloo mi mébét yu ñor xomm yoo xam ne bu ñu dajale woon gànjaru àddina yépp di seet seen seeraay bi ñu junj ne mooy bii moo gën a seer ñu ngi jubal ay mébét yu sell ay ñaan yàlla ay sargal tatagal guñ jëlee ci xool gu set wecc jëm ci mboolem ummatu muhammad bi fi toog di leen naan bismillah dal leen ak jàmm di leen sargal di leen teeru di leen tatagal di leen masaw coono ci lii ngeen toggoo te lépp ki tax mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yonent bi feeñ ci yéen ba ñépp xam na yonent bi feeñ na ci yéen sallallahu alayhi di leen ndokkeel ci bis bi di ndokkeel umatu muhammad fu ñu munti nekk ci kaw suuf ci penku ci sow ci bët saalum ci gànnaar ñépp ñu ngi dajale suñu pas-pas suñu bëgg-bëgg suñuy nomm-nomm di ko teg sa kanam naan la jaajëf ci teewaay bi yàlla na yàlla fay la yaa rabbi lii ñu jàkkaar lool addiya la addiya goo xam ne ci zahir addiya gu tuuti la waaye ci yéen addi addiya gu rëy la jéem ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi ñu jiitu ci kàddu yi rafet ci kàddu yi sell niñ ko tuddee amul waaso amul askan amul xeet amul giit képp koo xam ne doomi aadama nga bërëb bi sa alal la waaye bërëb yi sa cër la yal na leen jige yaa bi yal na ngeen ko tal yaa rabbi ku ci ñëw ak i coono yal na delloog ak i jàmm bi hormati seydina muhammad kon ngeen teel ma sama hadiya bi jëm ci yéen hadiya bi maa ngi ko tuddee zeynul abidin kenn la woon ci doom yu ma yàlla mayoon ci dund gi mu teel a dem demin ngoo xam ne gu yërëmlu la demin ngoo xam ne ndimbal laa ci jógoon ngir dimbal kenn ci umatu Muhammad kooku mucc sama doom des ci comme magul ba meññ ñu mën a kii ay doomam ba ay sëtam la ma daal di jiital pàkk bi dippee ko ko ngir mu doon ak fàttale ko bekkar ñuy daje moom yomal xiyaamati yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu euh, samay mbokk samay am di jàmm samay soppe samay wóllure way jur ak fu ñu jóge ak ku mu doon kenn ku nekk gis naa la du gisi bët yem ci waaye gisu xol xam ne balaa tey bii di neex balaa muy wéttaleeku balaa muy ratax démb wéetoon na ñagasoon na lëndëmoon na métti na ngeen jàpp ci di jëñëx ba tey toll na foo xam ne puus amatu ci waaye taal mu tàkk rek la yal yàlla fay leen ci zaahir yal na yàlla fay leen ci baatin doole biir ak biti yàlla na gunge leen bi hormati seydina muhammad sallallahu alayhi euh, lii lu ma yàgg mébét la def lu toll yi wala def lu ko ëpp lii wallaahi lu tuuti la ci loo xam ne maa ngi ko doon mébét ci yàlla tudduma ko ngir ngistal du puukaréew du ndéggatal waaye dama ko tudd ngir sant borom bi subhaanahu wa taala ngir mënoon naa ko sabablu te yàlla du ko sottal te duma ci mun dara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 talibey lañ fay faj ñi jang ma dem ci njël di rang di rang ba ma yegg mi di mi ngi bëgg jot ngir bëgg way ñu febar way lepp ma ngi muñ na legi ma yegg rek na am afiya ba ma range ba yegg mu ne ma fan ngay jangé ma ne ko daara sangam lay jangé mu ne ko mu ne ma fi du seen cieur demal fi ñi jang tubaab ñi jang école mo tax ñu tabax demal euh, benen bërëb way fi du seen bërëb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 du jomb ki ngay tutil tay ëllëg da nga ram ci ron pekkam bi dékk ko ay loxo mo seet ne ñi di jang te ñu ne ñom lañuy fajj fi liko li ci certificat d'études primaire jaar ci bfm e dem ci baccalauréat licence maîtrise bi ay DEA jang agrégation wala euh, doctorat lo mun ti jàng diplôme bo boo da ngay bay ñu ko acc sa saal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 alhamdullilah ña fa dëkk ñu ngi tew mot nañ doñ nañ sel di jaamu yàlla lu ma xam ci tur yàlla diko liggey liggéey ba juróom-ñaari at yooyu di mot kérok yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dal di feñ fàng sama bir neek yonent bi feñ feñ go xamne muntal na boti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 soxnaam ëmb ba diis ñu def seen rew cosaan yëpp mënut a wasin ñu dugal ci charrette ne dañ ko yóbbu hôpital seetal jigéen buy matu ñu dugal ko ci charrette méttit boobu kan ma la ko mën a wax boñ buy metti sax borom mënut a dugg charrette wala mu dugg ci ànd ak coono rawatina doom nekk ci biir jigéen juróom-ñeenti weer nga bëgg a wasin teew wasin ñu dugal la ci charrette di la yóbbu hôpital fi muy yéegee ci tali rek mu dajak oto subhaana zil mulki wal malakut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 lepp lu ñu ngir yalla di ko yalwaanal rek du yalla seen force la waaye lo tambali te yalla tax wallahi du taxaw yalla na la jox lo ci def dana tagat jami neex naqadi dañi ànd nga def ci yalla ci lolu amul plan man mako ko desanal sama bop amul ben plan Man ne nañu gas rek def leen ni def leen ni alal nekk fi mu jaaxal leen ma tok ben jigen ñoo fi ne dama febar febar deret dama di dem tugal ñuy dindi deret bi dama defal deret bu bes sama alal yeb mi ngi bugg a jeex te bes bu alal bi jeexé de mo ci tegu ñëw na nak ngir nga ñaan ma yàlla juma jullit waaye nag gëm naa fi nga toll lo ma ñaanal yalla dina ko def ma ne ko man jàngoor bobu xawma lan la mo ne bo boo tibboon suuf jox ma doy ma bindu saafara jox ko mu nan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 comme ci faj la jóge ci faj laa koy del képp koo xam ne lekk na ko jéggalu ma la ko du ma ko maye du ko saraxe duma ci génne dara lépp jébbal naa ko Seydina Muhammad ci laa ko tàmbale di ko tàmbale ba yàlla andi ko tey enveloppe boobu jeex na ay moromam jeex na ay moromam jeexaat waaye yàlla mottali na ko tey kon jéggal naa ñu doon wax yépp soppi damay soppi xaalis yi ko tabax ñépp jéggal naa leen tey fii ma toog jéggal naa ñu ñépp amul kenn ku ma bàyyi ñii nee nañu Iran moom mooy financé ba ñu dem ñu def recherche ñu bàyyi loolu cére yi ma doon am foofu sax dagg nañ ko pour bu mu yegg seeti ngir nee nañu Iran moom may dimbal ñu jóge foofu ne Irak moom mooy dimbale Saddam Hussein ba kooku loroo ñu ne du foofu ndax ba tey mi ngi liggéey ñu ne Libye moo koy dimbale ba Kadhafi jaare ci tali bi dem Kaolack wàccul fii ñu ne kon du Kadhafi ñu bàyyi loolu lan la ñu mujjee ñu ne sëriñ bi dafay soppi xaalis di dem ci magasin yi di leen laaj ne seet leen sëriñ bi alal gi muy andi ndax du foo wala foo la kon sikk sàkk bi ngeen doon sikk sàkk mu ngi nii te lii ñëw moo gën a rëy li même bu ma deeyoon tey lii feeñ dana ëpp li kàddu yi jiboon yëpp jégale naa ko toppatuma kenn ci dara baal naa leen lillahi wa li rasulihi eh, tur bi ma ko tuddee it danaa ko gën a leeralaat ndax ñu bari dañuy dem ci réewu arab yi di yàllawaan damay tabax jumaa damay tabax jàkka boo ñëwee nga tàmbali du yegg mukk nga seet kala dimbaloon nga tuddi ko kookale waaye kii du na du Seynul Abidin bu nekk ci réewu arab yi kii doom ma juróom la li ko andi tamit lii la yàlla dafa dogal dëkk bu ma jegeñ lool tudd ko du yomb benn jigéen bu seytaane feeñoon mu dof fekk mi ngi yore liir mu daw bàyyi ko du nangu liir bi muy daw ci àll bi ñu koy jàpp mu lu yàqu complètement ñu àndil ma ko ma dina nga jël kuy ak ñeenti junni nga jox ko shérif Seydina Muhammad boo ko defee dinaa ci dugg ñu dem ñoo ne def nañ ko ndeka defuñ ko ma daal di jox ko ku saafara mu dem balaa timis di jot mu dellu ci sagoom wér cëng la ko bàyyi daal di jaar ci man ne kii def ñoo tooñoon ñu bëgg koo yar nga dox suñu digganteeg moom ba mënatuñ ko laal daal ñu faye ko ci yow bët set rek sama doom lépp lu ma jur moom ci dàqaloon ndax dafa niroog sama baay mu ndékki ba rek gi ñëw ma foog ma mu daw génn fekk sareet mi ngi fees teb ak ciment mu laxasu ci rek mu jógu ci kam yàlla jël ko ba léegi ay yuuxoom dañul sama nopp kon li ma ci jublu woon mooy jaamu yàlla ba sama doom loru ca di zeynul abidin di setu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma tuddee ko hôpital bi ngir dellu sa tur kon sabab bi lii la ngeen téye ko noonale te ngeen maandu dellu ci yàlla ëllëg ñiy yàqu lépp ci lii lay tàmbali loo xamul loo bokkul maandu ci rek munuma laal tilim du rëy ci man jëmm ji toog di mbàkke dafay mbokk ci man waaye Cheikh ma Madi Haydara jigéenam moo jur sama yaay waaye sama baay it maama mooy Cheikh Moulay Hassan bu ma laalee lu tilim foofu lay dee kon wax it na na oyof wax it na jàppani ngeen dellu ci yàlla xam ne yàlla rek moo fi nekk lépp lu fa dugg bëgg a dugg te lu yàlla ñii tëdd ci gi gis gii danañ ko dàq mu jóge fi yoon na yàlla jàmmal leen lu jaay Seydina Muhammad Eh, yàlla day nee na ci alquran lu jamono lënt lënt lu jamono métti na am ay doomi aadama yoo xam ne dañuy doon ay combattant yu yàlla di woote jëm ci yiw di digle lu baax te di tere lu bon ñooñu ëllëg ñooy mucc ñoo bokk ak Seydina Muhammad benn sàppe woote ci yiw nag du dara bu dul def ay réalisation sëriñ paase na nit dëkk loo xam nga tufli ci moom lolou du sëriñ fa bi khaylihi wa bi khayrihi jalabal wara yonte yàlla muhammad bo demé ci tol ba moy raw ci surgay moy ngeen ci njaatige gay bo demé ci tribunal ba moy juge bi àtte bo demé ci daara ja mooy professeur bi jàngale bo demé ci toli xare ba mooy général bi jité bo demé ci jàkka ja mooy élimaan bi ana ban serigne moy defati koo seet bi mi ngi laqatu rek du maqaama moo ko laq du dara ay feem dong rek kon li fi nekk mbokk yi li ngay digle danga koy njëkk a def waaye li ngay tere danga koy njëkk a bàyyi sëriñ moo waroon a góor a góorgóorlu laxasaayu jiitu ne kaay leen jàngale fii ca géej ga waaye taxaw ci tefes naa ni ngay fiyee loolu amul dal dafa jaado sëriñ bu mu doon ni ngay tabaxee juma nga tabax hôpital tabax ay école def ay garden jardin d'enfants def ay orphelinat nit ñi yéem l'islam wuyu ko waaye nguur gi ñu ngi lay ñaan daaw nangam nga ma joxoon ci ceeb dollil ma sama dëkk satadoo ba courant ba doo wax diina yàlla gi doo wax ci progressé doo wax ci développement doo wax ci dara lu jëm ci sa poos ak ëllëg gooy préparer sa njaboot kenn ku dajeek Seydina Muhammad ëllëg da nga démb sëriñ si seen karaama mooy diw feebar na faj naa ko moo doon karaamay sëriñ bekkoor na ma ñaan mu taw àll gi naatatul ma ñaan waalo gi wal lii ku yàqule la ma ñaanal ko mu baax le kii ku yàqu la naa ko defar ba mu jëriñu boppam jëriñ nit ñi lii moo doon karaamay nitu yàlla yi waaye tey suñu karaama mooy gis nga oto bi mu jënd oto mooy lan ay yoon yu ñu dajale ëllëg moo gu nga sëg ya dikk keneen moom ko gis nga sëriñ ba grand boubou bi mu sol gis nga këram ba verre yi ñu ci def climatiseur yi gis nga kër gi sëriñ bi tabax gis nga passeport bi ñu ko jox président moo ko woo audience ministre bee ko woo mooy kan yéeg na tey ëllëg mu wàcc bàmmeelu président yaa ngi duñ ci siyaare benn demal ci xaadimu rasul mbaa nga dem ci waaw nit ñaa ngi raam rek kon diplôme bi ngeen yore yéen sëriñ si mooy gën diplôme bi ñuy yore ñii si li ñu yore wayul yàggul weyul te yéen li ngeen yore way na dana yàgg te dana wéy dana ànd a yéen ba yomal qiyaamati sayyidina Muhammad takkal leen ma daa ngeen dugg aljana kon li yabeel gi sëriñ si am tey ñoo ko jënd da ngay seet ministre bi seet député bi yow fàtte nga course bi fàtte nga der bi yaa ngi daw ci buntu ñooñu rek boo jógee mu ne léegi la fi mara bi bu jógee li ma la bëggoon a jox jox naa ko mu def ko essence dem seetal ni mu yàqee sa tur sa ngénte bi de mënatuma ci def ñaari saaku benn laa ci mën a def ndax jox naa ko waa sëriñ bi yóbbu na ko këram toogal sa kër yàlla dina wulli jaami xat man danañ la fekk si yonent yàlla xam Muhammad nee na képp koo xam ne askan gi yitteelu la doo man du ma yow kon lii xew ci jamono gii sëriñ si seen nelaw gi ñuy xas diina lislaam di ko ŋaññ di ko doyli kenn ku nekk préparé sa dund di préparé sa dund njaboot jëmul kër nañ dellu ci yàlla nañ dellu ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, nañu saafonte nañu baaxlante ak tayal gi motu ko nañu yittewoo suñuy bokk yittewu askan bi nañu dimbale miskin yi nañu dimbale baadoolo yi bàyyi wuute yi bàyyi xaccoo yi bàyyi diingatante bi jëmm ji ni mu def di ku mot sëkk ca Touba naaj bu tàng bi mu ñëw toog kook ñun lii dafa rafetoon sëriñ bu nekk nga dund lii yàlla na ko yàlla fay yaa rabbi yàlla bu yàlla tas yaakaaram yàlla bu yàlla tas seen yaakaar eh, alal gaa ngi nii kenn moom ak ku dul jébbal naa leen ko bés tey ji lu ngeen ci xam lu ngeen ci mun lu ngeen yor yéen a ngóog seen alal a ngóog bu ngeen ko defaree seen njëriñ la bu ngeen ko yàqee seen loraanga la yàlla na yàlla dimbale leen yaara bi gërëm naa ñëpp xala bu ma kenn xasuma kenn néewlawuma bosi kenn ñi fi ñëw yépp sëriñ si elimaan yi xalifa yi jàngalekat

gendarme yi sant naa leen ba ci kanamu yàlla am ñu toog yàlla rek moo leen toog la am na ñu toog yéen rek tax ñu toog naaj bi tàng na yéen ngi sol yu tàng yi dàll yu diis yi daal di gàddu seen kalashnikov yi te képp ko xam kalashnikov xam nga ne dafay nokki luy nokki na nga gàddu ko te ko sa yaram muy nokki di ànd ak yow xam nga loolu métti na waaye lii lépp liñ ci bëgg mooy fii ak ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla fay leen bàyyiwuma kenn bu xel bi tuddul it làmmiñ bi génnewul i xol bi takk na maa ngi sukk di raam di beesal sama kóllëre ci yéen di leen masaw coono di leen naan jaajëf te bu leen wàccagum yal na yàlla guddal fen yi yal na yàlla wéral cër yàlla bu yàlla tas yaakaar lu ngeen xacc yàlla na jegeñ lu ngeen dàq yàlla na sori fépp fu ngeen jëm yàlla na ngeen ànd ak jàmm lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na àntu yàlla musal leen ci laago musal leen ci mujj gu ñaaw ci kaw ci kanam raw raw le bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam